asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokk julit yi bokk taalibe ndigal ci sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général kulu murit ñëw nag ci mboolem jëwriñ ñi nga xam ni ñooy liggéey bii di màggalu Sarsara ca Mauritanie nu jàpp ko kañ muy fukki fan ak benn ci yoru tubaab yu jëm di mois de juillet 2019 ginnaaw bu jàmbaar ji jotee ndigal di soxna sa Mbàkke ahlu kafe di jàmbaari Sarsara ñëpp xam taxawaayam xam paseefam xam liggéey sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci moom loolu mu jot ndigal nag fas yéene woote ci bis boobu nu jëm noo ngi leen di nuyu nuyoo bu bàyyi bàyyikoo ci Serigne Cheikh Mbacke Diop mi fi nekkal Cheikh Omar Diop jaar ci Cheikh Mouhamadul Mokhtar ak mboolem njabootu sëñ Omar gi sëti Serigne Omar yi te Serigne Naara sant di wasila sëñ Ousmane mi nekk ca bopp ñu ñi ngi dëkkmal bis boo xam ne bis la boo xam ne sembul la ci yoon murit muy Sarsara kon Serigne bi nee na mi ngi jox ndigal njabootu sëñ Omar Diop gépp biir réew ak bitim réew fu fi waay mën a ne te mën a jote foofe nanga fa dem ndax bis la boo xam ne alxuraan ak xasida ak liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo nu fa yóbbu te moo nu ba fii nu ne moo ba ci sunu dund moom la ñuy fas yéene deewaale. sant nag ki ñu fi dajale di soxna Maysa Mbàkke soxna Maysa Mbàkke l'infatigable. moo nu fi dajale tey ngir nu waajal Sarsara Sarsara nag xam ngeen ni barab la boo xam ni. sëriñ bi lañ fa yóbbu woon de 1902 à 1907 yóbbu ko mu nekk ak Cheikh Sidia Baba nekk fa at yam fa nekk liggéey bu rëy ba mu fa def moo tax tey murit yëpp riir wuti Sarsara dem di siyaare ji barab bi at mu jot soxna May sa mbàkk dina dajale ay millier de personnes di leen convoyé di yóbbu Sarsara ñuy siyaare ji barab bi moo tax ren mu am innovation boo xam ni dina ko ci def woo na ñëpp woo na diaspora bi képp koo xam ni euh, taalibe sëñ Tuubaa nga mbaa ngay soppi sëñ Tuubaa fédération Ahlou Café Dakar na ñëpp mobiliser na ñëpp takku le huit la départ bi ñu ngi koy départ kër sëñ Tuubaa ca Colobane ci buntu kër soxna Ndey Mbàkke moom soxna Bintu moom sëñ Mbàkke Madina foofee lañuy daje bu ñu reeree ba pare fa la ñuy départ dem kuy ñëw nag sa pièce d'identité CEDEAO lañ la wax nga indi ko ak sa paas paas yi cinquante mille la ñuy départ Dakar cinquante mille la ñuy fay te maa ngi ñaan képp kuy dem lépp loo xam ne douane baa ngi koy tere bu ko fa jënd Soxna Maïssa Mbacké nee na bu fa kenn jënd tamaate bu fa kenn jënd diwlin bu fa kenn jënd suukar ndax moom day kilifa goo xam ne dafa jub te day liggéeyal sëriñ bi te bëggul ginnaam ñu koy taxal leen at mu jot sama kër la ñuy déparé taseeg moom Louga ñu ànd dem kon nag ñoo ngi woo mbokki jullit ñëpp ak képp ku daa dem ak ku demutoon ndax defe naa Sarsara moom aw yiw rek fa nekk yi woowee nag képp ku dib jullit rawatina taalibe murit yéene gañ leen ko yéene rek moo tax ñu toog fii di ci woo ñëpp xam na ne maanaam faray bàkkaar moo yóbbu nit àjjana ku amuti bàkkaar boo dem boo faatoo dem àjjana kon nag loolu ku la ko gàddul ku fay dem naa yóbbaale pas-pas boobu def ko ci xolam def ko ci xalaatam tey xam ne képp ko fa yóbbu boole ko nag fas-fas yi itte di boo demee su suñ borom dana faj sa aajo kon nag nañ dem demin gu sell dem demin gu na war a dem yiw soo rawatina leen soxna yu jigéen yi te yu bari nag maanaam bu ñu demee rek ñu jiim ko fa muy la sëñ Tuubaa bëgg daal soxna jaara mi ñuy roy bëgg ko suñ demee ngal la nañ fa nekke loolu ba ba ñuy ñibbisi di sant yàlla bu baax bim ñu mayee ñu waat xew-xew bii nga xam ne moo nu fi tax a daje muy ziyaaru Sarsara ca Mauritanie ñu yëkkati suñu kàddu nag ci turu soxna maam isa Mbacke bintu sëriñ Serigne Modou Fati Xari ibnu Seex Mazamba ñu gën koo xam ci soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe woote bi nag niñ ko daan waxee rek lañ koy waat soxna si day faral di wax ne da daan dégg Serigne Saliou di wax ne su ko leeroon ne ñëpp dem nañu xel kom dootu ko woote waaye soxna si tam nee na su ko leeree na ñëpp dem na Sarsara dootu ko woote waaye feeg mi ngi xam ne am na benn murit bu taxawagut Sarsara mu di ko woote. ndax yéene na ñëpp tàggoog bàkkaaru àddina ak bàkkaaru àllaaxira te Serigne Touba nee na ku fa dem tàggoog bàkkaaru àddina ak bàkkaaru àllaaxira kon xew-xew boobu lañ leen di yëgalaat ci ndigalal Serigne Mountakha ak magam yi nga xam ne tam ay kilifaam lañ muy ku mel ni Serigne fàllu Mbacke mu Cheikh Mamadou Mourtada waaye ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Mourtada mi nga xam ne moo nekk Nouakchott ak mboolem fédération soppee Seexul Xadim yi nga xam ne ñoo jiite liggéey ba ca Nouakchott ndax toujours day wax ne lépp lu muy def ci kilifteef ak ndigal la koy teg. xew-xew bi ñu ngi ko jàpp ren fukki fan ak benn ci weeru juillet muy le onze ba la ñu jëm waaye départ bi nag moom le huit lay doon le huit lay doon ñaari départ tam ba ñett dana am dina am départ boo xam ne ci njiital soxna maam Isa fii ci Touba kër sëñ Touba gi ci Daaru Marnaan la ñuy déparé am na beneen départ boo xam ne dakaar lay doon. ci njiital ajaratu faamaloo ñu war a déparé kër soxna ndey Mbàkke gi nekk ci kolobaan moo kër sëñ Touba gi benn la am na beneen départ boo xam ne tam war naa am mbuur waaye yeneen dëkk yi nga xam ne mooy Thiès ak fu mel ni Louga ba Ndar ñoom ñëpp kenn ku nekk départ yooyu ma tudd am na foofu yi dem ngir ànd ak ñoom am na ñoo xam ne luga la ñuy daje ak ñoom kon noonu liggéey bi demee ni ko bàjjan faama waxee léegi nag képp koo xam ne bëgg ngaa dem Sarsara tàmbali nañ bind mi diggante quarante mille ak cinquante mille ndax oto yi bokkuñ am na oto yi quarante mille am na oto cinquante mille waaye lu ci mën a am numéro yi ñuy joxe ku ci woote foo ci bëgg a dugg dinañ la ko mën a leeral li bàjjan faama wax ne tam dinañu fàggu ay dalukaay yu mucc ayib yoo xam ne képp ku dem dem ñëw bi lépp incha allahu taala ak tumuranke moom jàpp nañ ne du am ci yoon wi dem ak ñëw am na tam liggéey bu ñu fa naal boo xam ne soxna si ne woon na liggéey boobu tam nañu ko yëgal bokki taalibe yi ndax dañu fa naal jàkka tàmbali woon nañ ko ca at ya weesu waaye soxna si nee na mi ngi soñu bokki taalibe bi yëpp képp koo xam ne am na addiye joo xam ne bëgg na koo def ci liggéey boobu numéro yi ñuy joxe tam boo ci jokkoo danañ la wax wa nga xam ne ca nga ko war a indi soo ko indee tam danañ la ko defal ca liggéey ba koo xam ne tam da yor sa oto bëgg a dem na nga teel a jokkoo ak ñun su ko defee la war ci ay këyit ñu mën la koo teel a wax nga mën koo lijjanti ba sa oto mën a dem kon loolu mooy woote bi ñu ngi woo bokki julli yëpp di woo bokki taalibe yëpp te mag ñi nga xam ne ñoo doon laxas di dem Sarsara nga xam ne am nañu faatu ci yoon wi am nañu sonn xiif nañ fa xiif bu metti waaye li leen sëriñ bi fayee jar na ko muy tàggoog bàkkaar faatu tabbi aljanna ñun itam loola rek lañ fay wute. ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm waaye itam di wax tam eh, ñaari état yi nga xam ne ñoo yilif suñu ñaari réew yi te mooy Mauritanie ak Sénégal te njiital Sénégal di président Macky Sall njiital Mauritanie di Rahis Abdoul Aziz ñoom itam ñu ngi leen di wax ne seen doomi ñaari réew. ñoo war a daje ngir màggal ab soppe boo xam ne dafa liggéey liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci suuf su tedd soo xam ne ardu saalihin la ko tudde woon muy suufi Mauritanie waa Sénégal dañ fi jógee di dem Mauritanie ñu nekkoon ay njaboot yoo xam ne dañoo mujj amante ay relation ba séq ay njaboot loolu fi nekkoon ci lu baax aku jëflante suñu ñaari kilifa yooyu di ko sàmm tey ñoom tam ñu ngi leen di wax kon lépp lu ñu man a jàppale ci yoon wi bam ra ñu ngi leen koy sàkku ngir jël gi leen yàlla jël teg leen ci kanam njiiti ñaari réew yooyu te loola sàkku luñ ko seen bopp waaye yàlla suñ borom moo leen ko fal ndax mooy fal buur ñu nangul leen ko kon ñu ngi sàkku ci ñoom ñu rataxalal ñu yoon wi te jàpp ndalal ñu ko bañ mën a dem ci jàmm del si ci jàmm jërë ngeen jëfati bokki juliti bokki taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu kañ lay doon le 11 juillet 2019 départ bi di kañ di le fu ñu déparé fii ci Touba Mbacké kër Seexul Xadim gi ci Daaru man dama ni ana daayira yi ana jigéen yi maam jaare yi jigéen lislaam yi ana mbootaay yi ana ñu bëgg lu baax ana ñu bàyyi ndeyaleeg magale yi fu ngeen jëm topp ci jàmbaar lislaam kan soxna sa Mbacké doomi Seex Musaa moom sëñ Masamba dama ne gaañi bis baa ngi noonu ku ca jëkk gën ku ca mujj gën ah gaañi ma ne ko bàyyi ndeyale bàyyi magale bàyyi lépp dan Seexul Xadim Seexuna Ahmadu Bamba Xadim Sol tey la ko dan la ko suñu baamu fee tey sat saara sat saara sat saara fu sat bis bi nga xam ku fa dem tàggoog bàkkaar boo waaj tàggoog bàkkaar boo yegg a tàggoog bàkkaar boo ñu bisee koo dajal tàggoog bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu inna allazina ila sarsara qad qassadu siyaarati faraqu daarayni aw saara